koo gis koo dégg Kouyaté Kouyaté lay wax photoom lii loo leen siy yëg quoi biir xaar yàlla ak moom naa que du plaisir euh, plaisir rek lañ siy yëg ak joie ak mbégte parce que lii dafa neex parce que euh, parfois nga dégg tamit football dafa mel ni dollar day yëg di wàcc léeg-léeg comme boo xoolee contre Algérie bi passé jour yi am lu ñu déggul lu ne wax nañ leen ko lu leen dégg nañu ko mais teewul ñuy euh, critiques yooyu baax na parce que am lu defar na lu bëri ba defet boobu si defar na lu bëri ñu ngi gën a monté di gën a yéeg incha allah li gën ak li dàq mi ngi ñëw suba si kàttanu yàlla waa loolu mooy li ma wax sànq sant yàlla wala doole sant yàlla sax la ñuy wax ndax ñu war a doole sant yàlla mooy euh, match contre Algérie ñëpp a à côté amul ku def match jour boobu amul exception mais xëy na ñëpp moom lañ singalé woon yàlla mooy dogal loolu mais nii présentement nii nii nii boo xamante dañ ko génne tey si axe bi nii léegi-léegi ñëpp a koy bañ ah boo xool micro trottoir gis naa ko keroog sur 33 euh, kii euh, demande à 100 pour cent ñëpp dañu ne bu ko kenn laal si axe bi yu te ñoo ñi ko doon saaga démb ñoo ñoo koy tàgg tey kon li mooy football kon ñu loolu mbégte lañ koy def parce que tamit mën na gën a continuer saaga yi mën na gën a continuer te du ci mun dara ko en retour bu saaga yi ëlbati ko nekk ay tagg ak jëla gërëm ak kontaan si yow kon góorgóorlu na te loolu ñu doon ñaar loolu ñu doon xaar ci moom te mun des na mun na mun naa wax naa si benn télé ne mën na lópp lii mën na lépp li te dina ko wane suba incha allah si kàttan. mais looy wax waa xaar yàlla fu ñu wax kuyaate ku mën nañ ne gaa yi kuyaate leen gënal seen bopp sax fu ñu wax kuyaate ñu génn def mobilisation. bon dëgg-dëgg dañuy sant yàlla di euh, gërëm waa xaral yëpp parce que yàlla ñun des desaltuñ ñu ñoom desaltuñ ñu dara ñun ñoo leen desal Cheikhou waa xar yàlla desaltuñu ko dara moom moo desal waa xar yàlla xaral li ñu mënal Cheikhou yëpp defal nañ ko ko saayir ak ci baatin amul lu ñu desal Cheikhou tey Cheikh bu doon rey boppam pour joxe bakkanam pour waa xar yàlla mun leen fay parce li nga ko defal nii dafa rëy lii dërëmu kër gi dugg si dërëmu Cheikhu dugg ci dërëmu famille bi dugg ci waa xar yàlla ñoo volontairement ñoo ko defal seen bopp yooyu jeunes gis nii ñii taxaw nii ñii nii ñoom la lii nii te du fii rek dafa ëmb xaral ba grand fi bi yëpp kon ñoom dëgg-dëgg ñoom gàcc ñoom gàcce ngaa laamba ñoom Cheikhu moo leen desal ñu desultuñu ko dara dara dara dara te incha allah bu ñu bisee dina xam ne moom ay góor la ko ay góor la ko séqal mais ban conseil nga amul benn amul benn conseil bu koy jox bu may jox yeneen joueurs laa koy jox mooy fulla fayda jom gëm loolu seen bopp final du lu ñuy joué mais lu ñuy gagné la li ñu gagné final indi ñu ko pour une première fois ñu ngi tukub bi teg ko si monument am bii nii. kon daal 22h ñu ñëw féete ko fii 22h dañuy féete wu fii incha allah. salaamaaleykum mbokk yi seetaan seen télévision Tektal TV ñoo ngi si kaan bi ba léegi. yéen ñoo jël nañ leen yóbbu leen biir Égypte di dugg si reportage yi ñoo ngi fii c'est le Sénégal kii gañ di wàcc final bi bu soobee yàlla allah tey ñoo ngi fii biir xaar yàlla feefu Cheikh Kouyaté rond-point xaar yàlla gars jël ko tuddee ko Cheikh Kouyaté mbokk bi ñu ngi lay ziar. waaw ñoo leen dolli ziar bu wér. kay tey sant yàlla bu wér gars mais lu waral lii lu waral lii. waaw lu waral lii mooy supporter rek wane leen bi fii la dëkk xaar yàlla la dëkk. moo loolu waral lii. ci ah, bëgg nañ nag coupe bi ñëw fii nag incha allah bu neexee yàlla rabi suñu borom. waaw day ñëw incha allah. te foog naa ne coupe ba léegi ñoo ngi si buntu bi duggaguñu si biir gis ni mu yéem ñu lool. waaw instant yii nii mun naa ni wax yéen a ngi si buntu kër gi. duggagoo leen si biir néegi ak sal de yi. eggagoo leen foofu si néegi salle sal salle de bain yi. boo leen doxee dugg si biir di ngeen gis lépp lu ma leen wax. waaw ñun gis nañ dugg nañ si koñ yi koñ yu bëri def reportage mais ak xaar yàlla moyen ñu si def gisuñ ko si benn koñ léegi ñu bëgg laaj moyen fu mu jógee quoi wala Cheikhoo jël sotti ay millions nu mu demee waaw moyen bi yëpp lépp lépp lu fi am Cheikhou Gouyaté la parce que moom moo tax tamit ñu koy def quoi waaw lépp lu fi mun di am tamit Cheikhou Gouyaté la waaw moom la ñuy doon supporté Sénégal sax la ñuy supporté mais tamit moom doomu xaar yàlla la mooy capitaine bi noo def dañ koy jàppale oui kon kon est-ce que mën nañ yegg si. noonu lay demee sax bu leen neexee ngeen dugg xool saali ak néeg yi. mais final bi loo si gis. waaw final bi nu gisee mooy bërigo si mbatar la. buux mu dem buux lu mu dem la. ñoom dañu ameel bor te dinañu ko fay. si barki Nabil Moustapha loolu la ñuy suñu borom. waaw noonu la demee rek ñu ñëw andil. coupe gis. waaw lu ma gis deux rek laa gis laa ñaan suñu borom gis naa ko am naa yaakaar woo gis naa deux zéro. waaw jox bi waaw mais bu ko mënee ku ko mën a am day ñëw ku ko mën di dugal ba si gardien bi day ñëw jël fii feete ko bu soobee. waaw ah, noonu la demee coupe bi laa bëgg a téye nii dans la main. waaw man Souleymane waaw ba léegi ñoo ngi biir xaar yàlla waaw suñu première CAN ngeen koy dund ñu dem Égypte andil leen ko biir Sénégal nekk fii xaar yàlla taxaw ak gars yi Baye Fall mbokk mi ñu ngi ziar. ñu ngi la koy delloo. kay tey. sant alhamdulilah mais lu ñu gis nii naaj sant. waaw de mooy Cheikhou moo ko waral. te boo nee Cheikhou actuellement ni wax nga Sénégal comprendre comme kii capitaine rek wax nga Sénégal boo nee Cheikhou wax nga ñëpp wax nga équipe yëpp. waaw te di ñaan yàlla tamit ni ko joxe drapeau bi mu indiwaat noonu coupe bi joxaat ko. waa Sénégal waaw di ñaan yàlla rek booy comme sànq woote ne wax naa ko ko nee naa ko affaire yi xel ak xol la final la benn match la ful la moo koy joué coupe bi la nu soxla nu mu ñëwee baax na nu mu ñëwee rek baax na. bi mooy suñu deuxième finale yàlla joxoon noonu demoon noonu finale ñu ñàkk ko bii danoo bëgg yàlla jox na ko si kattanam ak si dara lii nu ko defal nag moom moo ko mérité waaw loo mérité rek ngay am booy bi fii la nekk fii la ñun ay magam lañu mais baax ak yaru lañu woon moo tax mu jaroon lii bàyyi suñuy njaboot bàyyi jabar bàyyi kër gi ñëw taxaw si naaj bu tàng bi à cause de Sénégal ak moom di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam mu yëkkati coupe bi ma koy waajal nag su ko yàlla mayee caravane bu rëy fii boobaa yi ñëpp ngeen ñëw nu invité mais match bi xel ak xol moo koy fubal final la benn match la lool loolu loolu daal laa amoon lu mu si sànni xel ak xol yàlla dafa leen jàmm may la ndam nu ñëw mais gis nañ bennoo bi biir xaar yàlla ñu xaw Kouyaté am na lu mu fi liggéey am na lu mu fi bàyyi gis nañ fi xaar yàlla bi yëpp génn def mooy version douze foo gënne nee nañ mën nañ xaar yàlla moo dàq si kii si final bi ak nu ñu joxe gëdd final bi quoi Sénégal bi yëpp dugg nañ fépp nag léegi léegi léegi la wootee ñu def ko ñu def ko whatsapp mu gis ko ba ba lew na laa dem wan ko koñ bi nu nu grand Yoff laa yor di ko ko won ni gars yi def ak ni gars yi di bale nu leen final bi jaralee léegi léegi même pas vingt minutes moom xam na lu ko war te xam na fu mu toll moo liggéey loolu. mais mbaa mbaa defoo leen yëfu tey profité si affaire yi rek ne xaaral ñu jam fi suñu kuyaatee autorisation yi lépp teew na si non non non non xëy na xam na lu ñëpp waaw li ñu bokk am na fu ngay toll doo sax xaar autorisation waaw da dóor xolu ñëpp sedd foofu lañ toll actuellement day ñaan yàlla jàlla am jàmm am yàlla may nu ndam li autorisation beeg bii dafa am autorisation mais Sénégal laaj lii bés bee ko laaj moo tax nu ànd ak bés bi def lii di ñaan yàlla coupe bi ñëw mais loo leen doon dundee comme premier match euh, Piyaate football Sénégal yëpp di kaas warul football warul léegi ñëpp dem sukk nañ jébalu. waaw xam nga li nga wax li nga wax dafa grand nga posé question moom solo bu nit naree jeexal te yàlla neewagul jeex na dañuy sonn seexu yàlla moo ko teg loxo xëy na deuxième match bu ñuy wax ñu nekk Algérie naufrage total amul ku dox si équipe bi mais yàlla suturaal nañu xëy na yàlla moo il mu demee noonu pour nu yegg fi nu yegg si mais ñun ñu xam seexu mu jee fi cadet jee senior jee fi minime ñun xam nañ kan mooy seexu tey actuellement ni actuellement ni waaw non moom la ñu am moom la ñuy tiitaroo moom la ñuy sagoo tey lu mën am moom la ñuy sagoo. mais ñaan nga gis si bi. non final bi comme naka. nga gis ak a. Ah, non non non non non xam nga ñun suñu lépp dañ koy teg si loxo borom bi lu nu yàlla jox rek nu jël yàlla na nu yàlla may ndam. waaw 1 0 beeg 2 0 beeg 3 na doon ndam final la benn match la fii lan koy bombu. incha allah fii lañ koy bombu def concert terrain ba toj ko. salaam mbokk mi ñoo ngi ziar. waaw ñoo ngi doole ziar. ah ñoo ngi taxaw ku ñuy wax kii la ñuy wax gaynde Cheikh Kouyaté nag ku ko xamul dégg nga tur bi man mii fii laa dëkk si koñ bi mais tur bi law na faw na parce que liggéey bu am solo bu muy def ak Kouyaté mais loo wax si final. bi dañuy sant yàlla rek. comme que dund nañ ba fekkee ko suñu xari suñu doomu ndey doomu xar yàlla Grand Yoff Derklé Liberté 5 muy finalu kon finalu Sénégal la juddoo xaar yàlla dëkk xaar yàlla màggee xaar yàlla fubalee xaar yàlla kon tamit xaar yàlla rek la munul def leneen lu dul waa xaar yàlla génn mobiliser bokk ndey bokk baay te gars yi guñu sax de parce que tey boo duggoon ci koñ nii da gis lu yéem a yéeme. ah dégg naa maa ngi si buntu bi. waaw yaa ngi ci buntu bi parce que fii mooy entrée xaar yàlla kuy dugg fii ngay jaar kuy génn fii ngay jaar kon moom nag premier koñ deuxième koñ la dëkk kon gàcce ngaalaama Cheikhou Kouyaté gaay mais lu am solo li naas yi yii fu mu jugee quoi gars yi ñu ngi naan si suuf Cheikh Kouyaté fi xëpp ay million wala gars yi ko bëgg ko. lii nit ki sa bësu deere nga am ak sa bësu bàmmeel lii kenn defu ko lu dul ay xaritam ay am di jàmmam parce que tamit il faut ñu wax lépp seex doomu ndayam xaritam parce que ñun tam am ñu lenn loom dañ koy nëbb ku ne am na fu mu la féete mais moom fu ko fu mu féete seexu yàlla moo ko fa teg dañuy sant yàlla kon suñu jaaxlee moom la ñuy naan ay eh, jox ñu mu jox ñu kon du ñu sute moom rek la ñuy du benn nag autorité du benn bon volonté xaar yàlla ñoo def benn benn benn benn benn mag ndaw xale amul xaaj ak seen mais ban sentiment ngeen am commencement bi ñëkk di xarab mën naa ne Sénégal bi yëpp benn xaar yàlla taxaw na Cheikhou mooy capitaine moom da koy joxe dem ba jeex si biir équipe bi gars yëpp ne warul football. su ma juumul Cheikhou Kouyaté bu muy ñëw équipe national kenn ñëwagul boor bu ndaw la ñëwee fekk ay grand ci banc bi mu toog di xaar dafa xaar de Cheikh Kouyaté ñëwul nii rek football de dafa xaar ñii di nga xalab xëy na xamuñu Cheikh Kouyaté dama joué championnat Sénégal joué petite catégorie dama joué petite catégorie trois ans joué junior trois ans joué coupe du Sénégal dafa am ay palmarès ay palmarès yu riche la am joueur yi foofu kenn ëpp ko palmarès dafa mérité place bi ñun waxoon nañu yàqamtiwuñ mais bu ñu duggee duñu génn xalaatuñu ko ci àdduna parce que liggéey na ko fi. moom mën nañ ne mooy numéro moom si classe. ñun ñii di xalaat duñu wax ak ñoom duñu wax ak ñoom xam nga kañ la ñuy wax ak ñoom vendredi bu jaaree pale fii lay yegsi ñu xam ne yàlla bu ñu doon xaar mais xaar yàlla lañ wax moo yóbbu turu xaar yàlla fu nit ma suut la yóbbu kon ñun amuñu leen lu ñuy wax de Cheikh Kouyaté ñoo ngi lay xaar Macky bu ko laalee keneen du ko laal. keneen du ko laal à part président moo fi ne. waaw mbokk yi seetaan seen télévision Tektal TV ñoo ngi biir xaar yàlla ba léegi si Baye Fallou Cheikh Kouyaté gaynde yi Kouyaté jaral leen lu ne waaw soxna si ñu ngi ziar. ñu leen di delloo ziar bu baax. waaw. ñooy sant bu baax. da ngay waaj final bi de. wala pare ngeen pare nañ bu yàgg. Ah, mais fu rafet bu ñu taxaw bi du rompoy xaar yàlla. fii may rompoy xaar yàlla rompoy. Ah, nu ah, yi ñoo ko defaral xarit tur bi fu mu jógee mbaa gars yëpp d' accord nañ seeg yooyu comme que lu ñëpp bokk la et tout. yi ñëpp nangu nañ nangu nañ bu yàgg sax. Ah, eh, gis naa premier match bi ñëpp di xaram mais gis naa fin bi moom ainsi eh, koo wax Cheikh Kouyaté lay wax numéro un ban fierté ngeen am si loolu. ah am nañ ci fierté bu bari parce que premier match bi ñëpp xamoon na ne ñëpp xam nañ ne metti na metti woon na tamit ci moom metti na tamit ci ñun ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal tamit mais tey li ñu naan yàlla moom léegi ci tàng-tàng bi lay fayee yëpp te yàlla leeral na yëpp parce que cheikhu match yi passé yëpp ñëpp gis nañ li mu def ñëpp gis nañ ni mu taxawee équipe bi wane boppam dem ba jeex wane ne moom gaynde la bu mag kontaan nañ ci daal am nañ ci mbégte tamit. day jeex daal waaw bu ñuy wax bu ñu bu ñuy wax ay waxam amaana duñ fi jóge parce que Cheikhou nekk na nit koo xamante ne kenn la ci ñun nekkul ñaar nekkul ñett kenn la ci gënal leen seen bopp quoi. dem ba gënal ñu suñu bopp Cheikhou moo ñu gënal lépp parce que Cheikhou tey jii dafa jël boppam jox ñu ko Cheikhou bu ñëwee ñun ak moom. Cheikhou fu mu munti nekk ñun ak moom gis nga ko sànq yaa ngi gis mu ngi woote ñu def ko appel vidéo mu ne na ngeen ma dugal xaar yàlla Grand Yoff mu xool nit ñi li ñuy liggéey ak nit ñi ni ñuy sonnee ci moom tey jii loolu yëpp moom moo ñu ko ji moo tax ñu koy ciy def te bañuñu ci dara ragaluñ ci dara tamit luy ñëwee dàq la mais noo gisee finalam bi ah final bi tamit gis nañ ci jàmm daal dinañ ci def lu mu ci mën yëpp incha allah jël coupe bi indil ñu ko fii gis nañ biyoom gis nañ léppam daal ba pare ñu ngi gërëm tamit nag kenn koo xamante ne dafa nekk kenn koo xam ne kenn la ci moom nekkul ñaar parce que tey jii bu ñu nee Cheikh Kouyaté dañu naan Cheikh Cheikh ngi ndag parce que Cheikh tamit nekk na nit koo xam ne nit ku baax la nit ku dal la nit ku yiw la nit ku am sutura la nit ku mun a dimbali nit te tey jii Cheikh ngi ndag bu ñuy wax sa Cheikh duñ fi jógee tamit Cheikh tey jii noonam la gën a mun a dimbali noonu Cheikhu la gën a mun a dimbali ka ñi nga xam ne sax ñoo sa boo duggee xaar yàlla lool léegi ngay dégg Cheikh Tidiane ngay Cheikh ngi ndang amin amin amin amin Cheikh daal ñoo ngi koy ñaanal daal di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba li nga xamante ne moom la yéene Cheikh daal yàlla mottali ko mooy coupe bi Cheikh ko fi in daal xaar yàlla du yomb 21 allah samedi tamit ñu ñëw